some other place and I said, let you me come copy up with that. your own idea. No, I mm. actually sit down and I sketch my stuff. Okay. I actually sit down and I come up with an idea. My ham's my client, body shape and be skin tone and be lana kojapa. Right. Hamga, lol, yep, you have to put it into consideration because man lufa to muna I don't muna kosol. Mm-hmm. Um, only linga muna man muna Why? Because doing bena. So yeah. every client is special at Tara. So fuck na lolo mo you there put in, in a certain position okay. where we care for our clients. All right. Yeah. So from there, can you danaka um paranensi interview bi? Why tay nak ah, do dem hanga defon nga mako fi. <laughs> Ma invite la tek la fi nga ne man gaay jaay way garawut tara um Fatou Dramé ñu gën la xamé ci chat. Yes. Nga nekk fi tok ci bir biir daw bi. Um, maanaam xam naa ne yoon xale yu góor yi nga xamante ne déedéet buur bu noba sa kanam bi wàcceel ñu xool la bu ba? ñu ngi seetaan bëgg nañoo xam am taara dafa single wala taara bu ngi sëy man maa ngi taara rek na xam design ñu ngi fi def moo ëpp sama bët bi caa drame waaw fu mu nekk nii ñuy seetaan ak xëy nag gentle ah, men I woke up I woke up dreading this part of your naa nag ma ngente dee ma waaye ma ngi dama la <laughs> I had <laughs> fu nekk nii ñu ne nettali si làmmiñu borom la mm-hmm. la la gën a jage mm-hmm. taara yaa ngi singul ndax yaa ngi sëy ndax yow searching wala gis nga gisante nga koo xam ne bëggante nga moom Fatou Dramé <laughs> toll na si sëy war naa sëy mm-hmm. te incha allah dina sëy man laaju bala loolu de xam naa ne nga si sëy te war ngaa sëy waaye yaa ngi singu ndax yaa ngi sëy obviously xam naa ne sey bi moom leeral nga ko fii ne amangut léegi fu mu ni nii gisante nga koo xamante ne yéen a ngi waxtaan ndax yaa ngi single maa ngi single ah caat maa ngi man dafa am lu ma dégg de xam nga man fii PNL bi luy laaxu laaxu rek dañ ko fee feeñal yéen ay naanaan ngeen te yen da ngeen nekk role model xale yi nga xamante ñu ngi leen seetaan dañ leen bugga mhm. te xam nga neexut si biir xool ngay buggantee nit koo xam ne xamuloo si moom dara mhm. moo tax man nag ne si fi ñëwee toog dama dee bugg a leeralal yëpp nekkul ne comme like dama la bëgg a expose or waaye ñi nga xam ne seen fan sa sa fan si lañ ñu gën a mun a xam yow yaay kan ñoo ka déggandoo léegi fu mu nekk di ma bàyyi la nga taagatoo ñi nga xamante ne ñoo la nekk di seetaan dama um, njëkk a taaw like you know thank everyone for coming uh, to see the show um, di la ñaanal Aida yaa fi nga bëgg a àgga yal na si yàlla dafa jàmm bu bari boole laa sa borom kër may leen jaboot bu bari te barke te tekki tekki yàlla buñ di ñaanal suma yaay suma pa mm-hmm. ah, dégg dégg am naa waajur su fekkoon ne man damaa baaku ne man maa fi gën waajur ah, ma ñaanal suma yaay suma yaay ba pare suma pa suma yaay taxaw na ma fu bare bare bare bare suma pa itam noonu di ñaanal itam suma mbokkaay Dramé Kunda ndaween ñëpp ah, njaayeen ñëpp di ñaanal Adja ñoo tax ma mel nii tey itam di ñaanal suma tailors yi naxari naa yëf pour liggéeyal definitely because léegi-léegi nañ def dara mu ne xooti leen ko startaat leen fresh te loolu itam ku la ko muñal itam nga xam ne ku ko eenal la jaama soo Cheikh Tidiane ak Haydara maa leen di ñaanal ah, Fatou Ba nga xam ne moom ngi jàppa si per bi boobu ba léegi moo njabootam gi yëpp di ñaanal ñëpp daal ma modèles si ñëpp The Nyah Gambians in you support on Gambia on the 27th April. Yeah. Caraba Hotel. Buko ken miss because G ang Monday morning fan neka. Mandolo machigeno bukarelo man. <laughs> But then thank you so very much. I'm so glad to have you. Thank you for having Thank you, me. darling. Thank you. <laughs> okay, let's have a short break. Soon you get your short break, but we're going to play a video of the week. Thank you, Chad.

gis naa ko jigéen ma nu tuuma man gis naa ko lii muy wax yëpp naa ko the only one I need. I swear, I swear, you're the only one I need. I swear, I swear, you're the only one I want. I swear, I swear. It keeps me burning the way you lightning. You are the only one I see when I'm dreaming. In the evenings when I'm sleeping, I can take my mind off you, girl. I am dying. You one who make me feel like a king. Eat night and day, you are me food and drink. Me nah hesitate, girl, if he buy you a ring, and I put you in a big house and get you a ring. Cartoon and a man you can know, see fast at home. Bidding agent, say what I've what a bank Okay, that was a nice video by Big C featuring Lillian. I'm Bix mu ngi def yu nice uh, but then uh, fu mu nekk ni right now dinañ dem si suñ Facebook messages comme nu ma leen ko diggee rek um, yéen ñi nga xamante ne yéen a nekk suñ fans yi mënuñ ta um, reach to yéen all the time comme di reply back seen messages yi waaye nii rek la ñoo mën a def wan leen ne faale nañ leen yëg nañ leen jërëjëf jëf amuñ seen fay um, kii nag Singaate moom mi nga xamante ni ñu gën koo xamee si Friki Jow moo ñu seen message bii nii on Facebook um, Singate Mune, Mohammed, BKA Mo Black, and wife, Aida Bidwell, and the crew keep up the good job. It's not a surprise to me. All these places I performed so far in Europe got lots of good comments about your show, BNL. Seems like that's the only show on GRTS with such an impact outside. All I can say, keep it up because people are loving it. If one is doing good, you got to recommend so they can improve. Thank you. Thank you very much. I mean, it means a lot to us. Um, Purugis for Message, see, coming from a big artist who's trying everything he can to take the Gambian flag high. Thank you, Singate. Appreciate it a lot. Next skin and saying Abu Chamla Tuda. When I Banjul Night Live, I love this TV show. I watch it all the time. You're doing a great job, Ida. Keep it up.